tàngal bégee indi na lu bees tàkk muy tàngal bégee menthe fraîche fas yéene ànd ak yéen ci weeru koor gi waaw waaw cafka menthe bu neex te sell ñu defaree ko ci anam yu mucc ayib tàngal bégee menthe fraîche rek kenn du ko jaawatle te ku nekk gis na ci boppam dana dem ci bisaab dem ci ataaya ak was wala mu doon tàngal bi ngeen taamu ngir am une haleine ak seen tàngal bégee une fraîcheur unique weeru kooru ren jii kenn duma gën a gore xam naa ni dinaa def li gën ngir teral samay nawle ak Punch rek kenn solnatul nañu yàlla dolli yiw dolli ñu yërmande dolli ñu baax ñu gën a laabiir gën a yaatu yokku teraanga yi yokku jàmm ngir weeru koor ku xéewale ren jii Punch moo ànd ak yéen ngir seddal seen weeru koor teraanga fii la fekk baax. waaye loolu amul yaakaar ku kii de boo représenté Thiès bi boole ko may leen ma gars waaw salaamaaleykum sama gars yi www may point image mi ngi nii amul yaakaar couture kii moo représenté Thiès xoolal nelaw yu rëy xandoor yi xoolal bii machine kii lan lay ñaw kii heure bii waroon fekk koñ bi jaxasoo xoolal ñaw yi di bëggante mais suba ba léegi kenn ñëwul mais kii yi bu leen ree lii ay xandoor la. kii moom xanaa daa guddee illi déedéet dafa teel eh, jox ngeen ma ko waa gis li lay jox li ngi nii rek eh. li la yaa ngi direct ni eh, de kii bu def nii yow bu def nii d'accord gars yi may leen ma tuuti waa may leen ma tuuti bu def nii may ma tuuti image bu def nii maa ngi jégalu ah, yaa yor sama communication mais bu ma weer maa ngi jégalu ah am nga gan <coughs> maa farum fi bët non non yow fekk la kii kan la Bousso waaw da ngay génn non non damaa fii si atelier bi pour nga ñawal ma si atelier bi pour ñëw war ma ginnaaw ah luy aay na fenn la daanoo li mu bàyyi ci ginnaaw moo bari waaw li mu bàyyi nii dafa bari mais baax na am naa naa la ko modifier bu ñu bu ñu corrigé waaw aj bi dënn bi nii parce que dafa doon jël oh ki jëlul poitrine jëlul poitrine waaw ñëw tey la loo bëggoon nga ne. lii da laa bëgg nga ñawal ma ko grand mbubu rek. lii. waaw nga ñawal ma ko. da nga kaa ñëw petit mbubu grand mbubu du. amul am nga lii sax kotalag laa bëgg soo amee kotalag nga jox ma ma ma lii. mu ni ma xool ko. mu ni nga ne kotalag waaw. gars ñëw kotalag nag kotalag. gars yi ayca nga ne ko. kotalag laa bëgg jox ma bu leen ree bu ñëw kotalag de kotalag. yéen da ñëw kotalag foo amul leneen nuñ koy wooy nu dul kotolog ah man kotolog laa xam ne kër yi naaw waay kotolog kotolog ah, ngeen baal ma commentaire yi dama wax proposé rek ñagg ak kii sëñ bi ñagg yow lu loolu ma gëj a dégg xool may leen moom ma àtte hmm. parce que en direct ngeen nekk nii waaw yow gën a lan nga kotolog laa wax kotolog yow nga ne ko musuma ñëw kotolog dëgg la da nga xam kotolog waaw ngeen baal ma xam nga ñaar ñi fëlaxoo ak réeroo la maanaam kii ni mu ko waxee baaxul waaye kii it ni ko déggee maanaam baaxul. bàyyi ma dimbali leen. yow catalogue la ñuy wax. catalogue waaw kay man kañ naka jekk ma xam ne ci waxin bi la. catalogue parce que yow bu ñu demee ba nga naan ko catalogue ñawuma ko. te représenté Thiès. waaw luy catalogue waaw xam nga luy catalogue. ah mooy livre yooyu nga xam ne da nga koy ubbi di gis tay baas yeeg ah. marinière yeeg yooyu. Ah. Ah. xool gars yi li ñuy commenter ne nañ kii ah. est-ce que naa dem mode Korité ñun tànn sa bu la neex lañ koy wax ñun hmm. tànn sa bu neex waaw man gii nag grand boubou bi laa bëgg nga dafa mag nga ko nii na na na wàcc na buubu ah. waaw comme fu rob bu tolli rek wala mu ëpp ko naka nii eh, eh, nga baal ma de ñëw petit mbub nee la moom buubu de yow man grand boubou laa ah, so nag yàlla nga ma jig grand boubou bu baax laa bëgg bëgguma mu tekk bëgguma lii ndax man xam ne ñu suñ ñun solo grand boubou mën naa kaa solo xam nga sa mesure xam nga sa mesure soo mujj après dinaa la envoyé. na ay deux ay trois rek. na à peu près daal. yow xem nga ma de. ah jëlal ma ji sa lii baa ngi nii naka xanaa dinaa man ay cent deux. cent. cent deux waaw cent deux eh eh eh. waaye commencé fii ah. ko longueur rek. mën na cent trois wala. yaa ngi cent trois. sama poitrine poitrine yëkkati sa loxo ah ah ah ah, ah. da nga am jëkkër nag poids fi ma jëm moom. kaay ma xamal la. Eh. tailleur yi mer nañu dañu yor ah, confection mer nañu. dafa fa collection dugal na commentaire léegi nii ci kaw. ba fa collection dugal na commentaire nee na kii dañu ko war a génn Thiès. yii yow moom mi may nattalee Ndiogu Fama dama nattalee nii. bul nooyi. grand bopp ñu ngi jégalu. bul nooyi bul nooyi. kii moom ba yow seera na di. xam nga yow yaa war a dem. xoolal ajal sa tànk. non kii. waaw kii ko naa ko à peu dama dama jërëjëf merci beaucoup. Eh, na ñëw bu rafet de. ah, ah, ah tamit xoolal damaa bëggoon nga dimbali ma rek sama benn xarit douane. waaw Adama Ndiaye chéri maman Baab. waaw doo ma ko ñawalal. waaw na ma yónnee mesure. d'accord kon gars yi tappata leen ko mi ngi noonu ne naa leen koor gi live daara ngeen koy am ay ca amul yaakaar couture a ngi noonu. merci beaucoup gars yi tappata leen live bi ko gars yi merci merci beaucoup jaa ngeen jëf Roberta Carlos ak la ma jox. salaamaaleykum. Penda i ah fii nga génn si balan. waaw gis nga papa. la yow de ki la ki li bu ma teeloon a gis. ma ma teg ko si raay. waaw Ibu tailleur moo fi waaw dafa daanu Ibu dafa daanu. ndax gis nga bi wan xen la ko waroon def benn loxo li waroon am maas benn maas la waroon def. xam nga li leen naan si je ne savais pas y a trouvé. ah bi bu ma ko téye bu ñu corté pare na dinaa la ko dinaa la ko defaral. eh waay papa Alaaji sama ñëw bi ngay reetaan bi pare dinaa la ko defar noir bi nga jiital si biir sax. Ah. da nga da nga daanu. Ah. noir bi waroon génn blanc bi dugg ci biir. Ah. naa ko defar bu ñu noir et blanc. noir et blanc waaw noir bee génn blanc bi dugg ci biir. d'accord gën xàpparin bi moom mooy nekk ci biir. d'accord waaw waaw waaw xanaa yi ay dañ ko doon yëy bënn bënn yi wala iboo ko def. <laughs> ah tissu tissu la tissu brodé la. ah xaay de gi sama ginnaaw gi de xaw ma ko. aywa waaw léegi nag man sax li tax ma woo la. Uh-huh. xam nga maa ngi waajal mode Korité waaw waaw moo du ko def. daal yow sa feeling ak sa cas ak sa cacas uh-huh. am naa mannequin bu góor bu jigéen ma manqué ma bëggoon nga défileel ma njaabal ma rek. man ma défilé waaw yaa ngi mel ne bul fi mu nekk ma. rafet nga ne soowu dolli. mbaa du ma boobu maa la ko wax benn ngeen. akaneer pot bu mag bi. waaw benn ngeen. bu am caakiri bi nag loo wax si sama proposition boobu noonu. xanaa papa Sané waxtaanoo hmm. nag li may li may wax ak moom ci mbirum jamono rek waaye ñaw gi moom soriwul ci. dafa am lu ma war a wax. dafa am ah! euh, bi fii nii jour ma doon joxe ndogu yi. man pour man sax sa euh, kii ku bon ki ci kër gi jeeg bi ngay ngay ngay ngay ngay nax noonu rek nax sa noonu kon am nga jëkkër. am naa jëkkër am naa borom kër. Ah! ku sa sax ku may toppatoo. ah yow de ah yow yow yow jëkkër dañ koy siiwal. dëgg la kan la. dëgg la xaanewu fi. non dinaa dina ko wax euh, papa euh, Sanex mu jàpp mu wax si. Mhm. Sanex xam na ko. Sané xam na ko bu baax. ah waaw ah, bu dee Sané xam na ko moom loolu moom génn naa la si. kooku mag Samb la. Sané xay alaaji alaaji ay Sané. jeex na jeex na jeex man moom bu nekk woon loolu. waaw dinaa défiler avec un grand plaisir. dëgg bi àgg na. waaye xam naa ne sama borom kër ko nangu. yéene bi àgg na. yéene bi àgg na. ok eh, eh, eh, oh! sa téyeel bi nu mu tudd. Ibu Ibu. Ibu nag ndek ginnaaw gi sax daf ko raté. ki monaat la ko waroon def. Ah. këll monaat ci ginnaaw. waaw waaw waaw demal eh, maa ngi lay catu sax fàtte naan soxna jàmbur nga eh, jërëjëf Faye Jamila jërëjëf waaw ah. kon sàmb caakiri bi mu fi indi ak enveloppe bi mu tëgg ci kër gi mooy jëkkëru kii sàmb taq kii sàmb ma nga màngo ya